bisub siyaar bisub fàttaliku bisub delloo njukkal oustaz Pape Makoura Thiaw ñu doon amal boobu lebis di waa daayira tawfiixul xaadi muy ndonga ya nga xam ne ñoo jaaroon ci daara yi oustaz Pape Makoura Thiaw dib jàngalekatu alxuraan dib sëriñ daara dëkk ci dëkkum sel bi di Touba yooyu la ndonga nag ñooy baaxoo amal année bu nekk ginnaaw bu nu màggalee ba ci ñetti fan yi moo xam muy góor moo xam muy jigéen moo xam muy mag moo xam muy ndaw mbooleem doomu aadama nekk daat nañuy teewee boobale bis oustaz Pape Makoura Thiaw di ci sant mboolem ñi nga xam ne ñooy dong yi jaaroon ci moom moo xam muy góor baa muy jigéen mag baa muy ndaw soppe ak xarit ak am di jàmm ostaas yi nga xam ne tamit ñooy ay xaritam ak ay am di jàmmam daan nañuy teewe boobu la jotaay ginnaaw bu ñu demee nag ba ñeenti waxtu jot daan nañuy defar ay bernde yu am solo jox ko mbooleem gan ñi fa nekkoon su boobu la bis waaye bi ñu demee nag ba juróomi waxtu jot ginnaaw tàkkusaan daan nañuy amal waxtaan bu am solo ko ko doon def nag di ostaas Saliou Baal waxtaan wa nag lañ ci doon waxtaane mooy coronavirus ak lam lambo ginnaaw waxtaan wa nag amal nañ fa benn nadwa bu am solo ñu seq kook oustaz Abdoul Karim Diakhaté ak oustaz Abdoul Ahad Diakhaté oustaz Ibrahima Thiaw ak oustaz Cheikh Sarr ak mboolem soxna yi mu ko seqaloon ginnaaw loolu nag oustaz Aboubacar Thiaw mi ngi ciy sant mboolem ñu soog nga xam ne ñooy soppe yi ak xarit ak am du jàmm yi ak mboolem ndongo yi nga xam ne ñoo doon taxawee booba la bis di ñaan ci barke doon Touba yàlla na yàlla faj aajo yi saahiran wa baatinan tey nag ñu jox ñu thème boo xam flagrant dafa xaw a leer waaye dafa mel ne lu amaat benn ambiguïté bu ci nekk te mooy am lënt mooy corona durusun wa ibar suñ ne corona xel yépp day dem ci virus la fayruusa ci arab mu bokk ci fayruusaat yi nga xam ne suñu boroom daf leen wutal seen xaalamu bopp maanaam seen mondu bopp virus yi dañoo am seen mondu bopp ndax ku ne xam na ne feebar ñaar yi ci gën a siiw yu koy joxe benn bi la ñuy tuddee bacteria benn bi ñu koy tuddee virus saa buñ li leen di tàqale nag li gën a bay bactéria suñ ko waxee ci mooy bépp xeeti maladie yi nga xam ne ay microbe la ñuy dugg ci biir nit ki mën a dugg ci biir développer seen bopp indi conséquences yi bëgg a indi ci yaramu nit ki yooyu lañuy ñuy tuddee ay bactéries am beneen xeetu microbe boo xam ne moom lañ tuddee virus li tax ñu koy tuddee virus moom du am doole mukk moom saa bu duggee ci nit ki dafay exploiter lenn ci cëri nit ki dollee ko dooleem pour mën a sanctionner nit ki ci façon bi mu mu mel na ñaar yooyu ñooy ñaari xeeti jàngoro yi gën a fés ci àdduna bi wala doomu jàngoro boog yi gën a fés ci àdduna bi yi attaqué doomu aadama mu mel ne it doon loo xam ne bi borom xam-xam yi dalee gëstu ba léegi xam nañ ne suñu borom ay millions yi millions yi la ci la ci liggéey yenn yi ñu ngi ci garab yi yii ñu ngi ci mala yi yenn yu ne mi ngi leen tasaare ci biir àll waaye ba fii ñu toll nii ci li gëstu waneegul li ci doomu aadama xamagul matagul juróomi junni virus lu mu liggéey ay millions te li ci doomu aadama découvriragul matagul juróomi junni virus te ñi ngi jox ko ba léegi ñi ngi ñun ci biir dénd bi mu mel ne bii kon benn la bu feeñ ñëw ci sunu biir moom virus boobu it muy bu baatu virus ba léegi maa ngi fi dafa bokk ci jëmm yi nga xam ne dee leen gisee ci bët mu jarradal maanaam jël bët rek xool ko gis ko déedéet faaw nga jëfandikoo ay jumtukaay yu lay may nga mën koo gis ndax lu tax ak sewaayam bu jéggi dayo ba tax na faaw nga egg ci ay mukabbarat wala ay ixtibaaratul mukabbarat yoo xam ne moo lay yóbbu ci nga mën a gis ne mi ngi fi wala nekku fi kon mu mel ne kon jëmmi virus loolu doy na ci sëkk ci ab tënk ne bokk na ci microbe yi daal maanaam microbe yi nga xam ne dañuy attaqué ñaari ñoo ci gën a fés muy bactérie ak virus li leen tàqale it bactéries moom mën naa développer boppam attaquer nit ki développer boppam bu dee virus nag faawu day utiliser ay cellules ci doomu aadama bi yoo xamante ne ci lay sukkandiku pour mën a développer boppam ba def li mu bëgg a def loolu mooy liñ ci mën a xam xamle ci nii léegi nag ñu ñëw ci bim ñëwee ci Sénégal waaye balañ cee def faaw ñu def benn recul wax ne ay waba mbas yu bari tàbbi woon na ci adduna bi war nañoo xam nan la ko adduna jàngale xamoon nañ fi peste xam nañ fi choléra xam nañ fi influence influence bokk na ci jàngoro bi ëpp lu mu rey ci adduna bi parce que moom bi mu ñëwee rey na diiseenu monde maanaam bi mu wàccee soj la moo xamante mooy am soj la woon moo xam ne mi ngi wàccoon ci Espagne di développé di yaatu waaye boo xaajoon adduna bi fukki xaaj benn xaaj bi rey na leen bi ñu xaymaa lim rey ci jamono boobu comme nit ñi bëree guñ woon tolloon na ci ñeen fukki million yi nit kon defe naa boobu feebar feebar bu gaaw la woon te lim doon rey mel na ni bari woon waaye warees naa lijjanti ñun nan lañ ko dundee woon parce que xawoon na tasaaroo tuuti ci goxi àdduna bi bu ñu xoolee peste bi Sénégal jël ci cëram mu gënoon a tarit nu mu doon songe ndax bi muy rey moom it aw reyinam mu dalaan lu mat téeméer damay ragal ne fukk cay rëcc ñu ci des yëpp dañu di rey bu ñu jëlee beneen feebar bu ñu yàggu dara nga xam ne moom it dugg na ci Afrique dañ koy tuddeeti gannaaw euh, njëkk corona Ebola Ebola bi mu ñëwee téeméer bu mu kon 2 pour cent ou pour cent ñoo ciy faatu su fekkente ne conditions yi leen di fajee normal léegi yooyu mat naa jàngat pour ubbee ko ne kon feebar bi mat naa ko jàng bi ci des ci la ñuy tàmbali nag dugg nag ci yan leçon lañ mën a jànge ci feebar boobu bi mu nu duggee ñu leçon bokk na ci leçon yi ñu ciy jànge mooy adduna bi liñ doon jaay te amut li adduna bi doon jaay te amut nag yenn rek ci yu doon jaay te benn bu ne corona ñëw na lañ doon jaay lam bi njëkk ñoom dañoo fopoon euh, li ñuy tudde sécurité tënk ko ci social alimentaire et cetera ndekete sécurité sanitaire kenn mënu koo assuré ci kaw suuf maanaam sécurité ci wàll wér gu yaram ndekete li coow li bari bari bari bari bari bari corona ñëw na fëgg bunt bi ne leen amu leen ndax adduna bépp jàppoon nañ ne am nañ sécurité ci wàllu wér-gu-yaram ndax ku ne xam na ne jumtukaayu xarale yi léegi la gën a ay léegi da ngay toog Sénégal ku nekk ci Amérique toog ci Amérique taal benn appareil nga nekk Sénégal mu lay opéré loolu ñu ngi koy gis léegi waaye téewul bi corona ñëwee ba dugg si wan na waa adduna bépp ne leen sécurité sanitaire amagul maanaam wér-gu-yaram adduna bi amaguñ sécurité luy firnde bi mooy ba fii ñuy waxee nii amaguñ lu ko mën a faj ana lañ koy faje dañ koy faj ci symptomatique te mooy symptôme yu fés ñu faj symptôme yooyu boo sëqatee ñu jox la doom buy faj sëqat bu fekkente ne yaram yi day tàng ñu jox la doom buy faj yaram buy tàng bu tànk yi dee metti ñu jox la doom buy faj tànk yi metti wala bu ko piqûre dee def ci noonu lañ koy faje buñ demee ba diir bi mu war a paase éliminer loolu mooy indee wàccu ñu jox la ne la lii de calmer wàccu mi éliminer loolu ñoom loolu loolu mooy doon paj mi ci façon bi ñu waxee ne moom lañ koy faje ñoom kon léegi jàngal na àdduna bi ne leen wér yaram amuñ ci sécurité bu ma demee ci dëkk mujj wax kan am sécurité ci wér ne leen sécurité sociale am na ne waaw mu ne leen amut corona moo ñëw wane ne réew yi fi doon wax ne ñoom ñëpp dañoo egg ci ca toppa ca kaw nga xamante ne dem nañ ba tudde seen réew al buldaan al muhaymana réew yoo xamante ne ñoom jekku nañ adduna bi complètement réew yooyu ñëpp sukk nañ ci kanamu virus su tuuf soosu jébbul ku mu ci ñoom raam nga ñu dem ba dem ba Amérique ci boppam sax gis nañ seeni gone ñoom génn ci mbedd mi di yalwaan ak di jaay ndox ngir lu ñu lekk kon foofu boo dellusiwaatee